Abdou Diouf rajo président dalal bu Ndindi d' abord maa ngi leen sant di leen nuyu di gërëm ndax du ma ne guléet du tay ay at la kon muy amul tabaski amul màggal amul benn événement boo xam si mi ngi xew te duñu nemmeeku kon ñoom gàcce ngalaam ñoo ngi leen sant di leen gërëm kon ni mu ko daan waxee ci ci ci bi yëpp ndax gis nañ seen taxawaay euh, rafetlu nañ ko bu baax a baax a baax à chaque fois ñu ngi déplacé wu di dikk di laaj di nemmeeku nu ngeen def nu mu toll nu ngeen mel da leen def nii da leen def nii kon loolu ki bëgg am jàmm def loolu kon ñoo ngi leen sant di leen gërëm di ko tàmbalee ci seen kilifa ba ci ki ci gën nekk ci ci ñoom kon daal maanaam daal seen taxawaay daal mën naa la fii ci dëkk bi dara ndindi moo ci gën a cate waaye moo fi gën ginaawe waaye waaye teewut ginnaawul ko ñoom ndax à chaque fois ñoo ngi fi ñëw di leen nemmeeku def visite di pompe di di nemmeeku di sensibiliser nit ñi ci raxasu yeeg maanaam masque yeeg lu mu mën a doon rek lii moo leen di aar li moo leen may jàmm kon ko ki ko koy moom moom sa mbokk la tey bëgg na nga jàmm maanaam ñoom corona da leen ndax booba ñoom bi man bi ma leen gis fii ñu tux fi ak tey ñu fi indi sel di fi indi masque di fi indi ndox raxasu leen eau de javel lépp kooku booba corona amul kon ñoom corona da leen a ci seen liggéey wàñ dañ koo yokk waaye wàññiwuñ ci dara ndax gis nañ laaf gis nañ saabu yeeg lépp kon ñoo ngi leen di jaajëfal di leen sant di leen remercier di leen gërëm gis nañ seen bu baax a baax li seen mënaale la la boo xam si ni bu doon mën a wax ci mel ñun ñoo leen moom wala boog ñun ñoo fare ak ñoom ndax ñoo fare ak ñun ñun ñu fare ak yéen kon ñun ñoo ñoon daal amuñu dara dara dara dara lu ñuy wax ci waa service d'hygiène lu dul yàlla na yàlla defal jàmm seen liggéey rafet na gis nañ ko seen taxawaay yàlla na yàgg te it kon ñoo leen remercier bu baax a baax. du Góoru Diouf man maay adjoint chef de brigade di d'hygiène bu Touba. ñu leen di jaar bu baax donc tey dañoo amoon journée dañu ñëwoon ci daral yi fii fi indi di kit a waxtaan ak euh, responsable dara yi ak ñëpp ñoo ñoo fi nekk di jaay ñam pour euh, mesure euh, d'hygiène yi concernant lavage des mains. Euh, ak euh, plus tamit la respect des mesures barrières donc loolu moo waraloon visite bi donc dem nañ Kër Kàbbu actuellement ñu ngi fii ci euh, daral bu Ndindi donc doon waxtaan ak chefu daral bi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci daral bi pour le respect de mesures barrières. message bi ñuy lancé rek mooy maanaam ci wàllu jur gi parce que da ci am ay xeetu feebar yoo xamante ne dafay nekk ci jur di jëm ci nit moo li ñuy wax les maladies zoonotiques. donc dañ ne bépp ci euh, xar boo xamante ne gis nañ ne wérul nañ ko écarter pour bañ ko utiliser ci tabaski bi lépp loo xamante ne aussi tamit maanaam ci wàllu euh, xar yi ñi nga xamante ne dañuy jaay xar médicament yi nga xamante ne moom la ñuy xar yi actuellement nii loolu wees na parce que tabaski bi daanaka li si des bareetul donc ñoom bu ñu jéem a fajal seen bopp lu ci am rek nañ dem xool agent vétérinaire bi nga xamante ne moo nekk ci bi jéem jéem ko laaj donc ay ay xalaatam avec déjà ñun ñu ngi ci wàccaayu tabaski bi parce que tamit agent yi actuellement ñaari équipe la benn bi moo nekk ci daral bi benn bi le terrain ci marché yi di def contrôle pour retirer produit yi nga xamante ne produit yu baaxul bañ mu dem ci askan wi bañ bañ koo jëfandikoo donc màggal tamit beneen cas de figure lay doon incha allah ñu ci eggee tamit ci même kii bi rek la ñuy nekk donc contrôler boutique yi bépp ñam boo xamante ne baaxul ñu génn ko ba nga xamante ne askan wi di ko mën a lekk pour mën a am wér yaram ci jàmm ak ci salaam non liggéey service d'hygiène Touba moom wax dëgg yàlla seen taxawaay rafet na ndax moom toujours ñu ngi ci biir Touba jaxantante ak ñoom ci biir Touba mais seen liggéey ci biir Touba moom rafet na ndax suba bu ne ñu ngi ci seen waar nit nag moom bu nekkee ci liggéeyam da nga koy ne jëf ndax ñi fi nekk ñëpp depuis màggal ba wéeru tabaski ñëw seen toujours dañu ñëw ci fii ci daral bi mais buñ fi ñëwee liggéey bu rafet lañ fiy liggéey Eh, de seen li li ñu leen teg fii pour ñu liggéey ko ñu ngi koy respecté. leen gërëm leen parce que nit moom mënut a mënut a liggéey dara te wérut boo àndut ak wér mënoo liggéey dara kon nag eh, sant nañ leen gërëm leen ci li ngeen ñu indi loolu ay masque ay saab ay eau de javel eh, pour ñu mun cee jàpp bu set loolu sant nañ leen ci gërëm leen ci bu baax a baax. moom li ma leen di laase mooy ku dugg ci daral bi jaaral fi ñu def ndox mi ak eau de javel bi saabu nga raxasu. booy wàcc nga jaar fa raxasu ñibbi sa kër nga bañ a yóbbaale micro dara sa kër. merci c'est vrai merci ka Touba Tawfiq Fata nag nekk suñ chef de daral mi nga xam ne euh, wax dëgg yàlla buñ ko fi fële ba léegi rëcc wuñ ko ndax euh, euh, doxu doxinu mbut doxinu mbut lay dox te de te de doxewut doxin bi nga xam ne ni ku am ndey kom mu amul ndey pël ak olof ak séeréer lépp la yemal